tey dañuy rafetlu émission bi bu baax. ñu tooñoon mhm. ñu tamit ñu bañ seen ci naan sant leen bu am solo. Mhm. ndax yéen moom kenn am seen feebar wax dëgg yàlla. Mhm. waaw kenn am seen feebar wax dëgg yàlla ndax diine moom képp koo koy jàngale moom amul tànn. dëgg la. Hmm, wax dëgg yàlla gën leen jàppale daal gën leen taxaw. loolu ndax dina jàmm solo lool. alhamdulilah. ñu ngi kontaan bu baax Bachir. di nuyu waa Touba yëpp di leen ziyaara bu baax a baax. waaw. di leen ziar baax surtout sunu mbokk ba cay jannatu sëñ Moustapha Xasaayid di suñu wëllëre bu baax a baax ñu ngi koy nuyu di ko ziara ci koor gi di nuyu mboolem ñi nga xamante ne bii ñu ngi foofu rawatina dëkkandoom boobu di sëñ Abdou sa Dia macha allah eh, Adja defe naa ni mbokk bi li mu wax lu am solo la. waaw su ko ñu xaar nit ñi ci téléphone yi euh, suñu mbokk yi nekk ci Gabon yi nekk ci euh, Afrique Guinée bi euh, Mauritanie Gambie. waaw ma daal international bi moom xam naa ne yëngu ba tey am na problème daal. da dégguma dégguma. waaw ndax benn kii dugg xam naa ne waa dina ko defaraat. ndeysaan bu soobee yàlla parce moom yooyu yooyu ay na ci lool. waaw kay. Mhm. su su ko defee ñu ñu leen ci téléphone bi. waaw ndaxte ku allah am na am ki international la. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. dellu si. ah mama Diop waaw mama mama Diop. waaw. mama ma bëggoon ci sama yaay. ndeysaan ah mama yooyu dama lay may yow bu fi amul sax ma jëndal la jox la may sa baat maanaam bu ñu coupé yow ah, eh, waa madame Sarr dina la jox léegi dégg nga. waaw. waa kay jóoba jubba. ndeysaan. Eh, ndeysaan bu ñu coupé. mooy mooy mooy ki doon njoosante ba tardé julli. waaw ndeysaan moom ndeysaan maman xam nga léegi kon ñuy woote fii. Mm-hmm. ñu bëri waaye nag dafa am ñu xaw a mel ni soxna Binta Diallo. Mm-hmm. ak ñoom Ndeye Fall HLM Grand Yoff Ndeye Fall bu ñaari tali. Mm-hmm. ndax dañ naan ma woote nañu. mais defe naa loolu di yenn saa am na ñoo xam ne dañuy dugg ci euh, ne xam nga buur ba dafa ñëw oustaz. Mm-hmm. ne dafa bëgg ay dafa soxla ay bëri golem. mais mm-hmm. comme dëkk bi bëri nañu mu ne ku nekk rek na indi benn mbàttu lem. Mm-hmm. benn kaasu lem daal la la soxla. ah ku mel ni macha allah umu ñaŋ. daal di ne ah kon ñëpp daal bu ñu indee ay kaasu lem man bu ma indee kaasu ndox rek du garaaw. daal di indi kaasu ndox. ndekete kaas ndox boobu mu xalaat dëkk ba kenn jéemu la wuti lem ku nekk dane ah bu ñëpp joxee rek man ma joxe buur daal ubbi barigo yi barigo yëpp nekk ndox nekk ndoxu kese waaw buur nag leen nag yéen nag ndekete lii ngeen nekkee ci dëkk bi mhm. ndekete lii moo tax bu ma nee nañu tuuri mbalit yi ñu ñëw ba jub poubelle mbalit yi tuur ko ci suuf dégg nga suñu nee bu ne man dong boo nee man dong nag rek boo moytuwulee ñëpp ku nekk jàppale du man dong du man dong bu yàggee rek mu bëri xam nga yenn saa yi itam am ñoo xam ne dañ naan dañoo comme xam na ne ligne bi day saturé rek. Mhm. ñu ne bu ko defee ñu ne ah woote naa ba sonn soxna si préféré woo la ci sa portable di laaj si mbiru diine bi or que boo laajee tey dëgg la. baax na trop macha allah kenn du xeebal kenn. mais tey man kese ak yow kese ñoo ciy jëriñu. ndax boo ma laajee bu ma waxee naa ci am. mais boo waxee ni tey ñaata million doomu aadama. ngay dimbali démb am na xale bu tudd Marème Sarr. ku nekk États-Unis fële Texas. di ma woo di rafetlu émission bi di wax ba xolam sori. démb dafa mujj sama xol yépp sax tooy ba ma ànd ak moom ñuy jooy. mu ne wéetaay bi mu ak lii daf borom këram enregistré ko ko. bi mu ñëwee njëriñ li nga xam ne am na ko ci. am na ko ci macha allah kon ndekete kon ñuy wax ne. nit ñi nañu baax démb. te nit ñi dañuy bàyyi même détail duñ ko bàyyi. démb dafa am sama benn xarit bu ñuy wax Adja Marie Thioune. di soxla ci El Hadj Ousseyn Ndiaye bi nga xam ne moo nekkandoo woon ak El Hadj Youssou Ndour. moom Adja Marie Thioune maa ngi koy remercier ci conseil yi mu ñu jox. di ko ñaanal di ko wax ne mu jottalil ma nuyoo bi waa AFDES yëpp. parce que dafa am détail yu sew yoo xam ne ñoom ñuy seetaan. as def ak ah, noonu. AFDES mhm. mooy association bi nga xam ni ñun ay tout tànk la ñu bokkoon mhm. nekk ci ba léegi te ba léegi ñu ngi ci nekk ba am nañu ay sët macha bi ñu amee ay vingt ans lañ ko créé woon bi ñu nekkee Grand Dakar mhm. ñaari tali maam ay sësi sa jiite ko te Adja Sel Gueye créé woon ko ba léegi nag AFDES boobu mooy kii moom nag Adja Marie Thioune moo yore affaire li ñuy wax mooy géwélu mbootaay bi daal ak Awa Ndumbe Awa Ndumbe itam maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar mu ne oustaz la ne mm. oustaz Awa Ndumbe la te moom wax dëgg yàlla jokk jokk <laughs> liggéey yi la gën a mën su ko defee loolu euh, muy lu neex nag muy lu neex ndax Sénégal moo mel noonu uh-huh. ndax ñun ñoo bokk yëpp mm-hmm. ñu leen di ziyaare bu baax mais xam nga nit nga toog di ko seetaan mm-hmm. gis loo mënoon a toog di ko ko saboté wala di ko ko reewee mm-hmm. nga xaar ba mu ñëw nga jox ko ci conseil moo xam ci xam-xam bi la gis nga waa jaamiatu Azhar suñu doom ya nekk ñoom dañuy seetaan émission macha allah léeg-léeg ñu wala daan ne la xam nga man léeg-léeg rek xaw ma damay iqtibaas xaw ma damay jaxase naaw beeg sarf bi xam nga ñun léegi moom bopp naax nañu ak ak suñu doom muy euh, Moustapha euh, Seck maxta sëriñ sëriñ doomu oustaz Fatou Kayra la mm-hmm. moom mu nga ci waa waa waa waa Ceneba la. Mhm. ndeysaan mu nga ca Azhar di jàng. Mhm. ak Umu Salamata. teel am na kuy ñëw. waaw Umu Salamata doomu Fatou mu ngi itam Tunisie. di mhm. salaamaaleykum wa waa Aïda na nga def. nga ñoom Aïda ngi nii di dugg. waaw di dugg macha allah. maa ngi rafetlu émission bu baax. waaw. day tax ñu xam suñu diine moom. dëgg la dëgg la rafet na dëgg la dëgg la Aïta. macha allah. Aïta. na. Euh, njàpp yow nan nga ko gisee nan la ñuy jàppee boo ko doon tënk ci wax. waaw su ma ko doon tënk ci wax parce que jàpp ni mu ko jàppee dafa juum. dafa juum waaw. dafa juum waaw. Mhm. sooy jàpp. Mhm. da raxas sa loxo ñetti yoon. waaw. raxas sa euh, gémmiñ ñetti yoon. raxas mhm. sa bakkan ñetti mhm. yoon. nga mhm. sëlmu. mais moom muusal moo baax. muusal moo baaxul aha. waaw da ngay ñetti yoon. raxas sa loxo ba sa oom ba sa conc. ñetti yoon. raxas sa bopp. ak sa nopp bu nekk benn yoon. ah très bien Aïta. léegi nga jël sa tànk droite. nga commencé baaraam bu mag bi ba ci bu bi. te nga jël sa tànk gën. raxas ci baaraam bu boo paree nga wax lan. après ñaan bi ciy topp mën nga ko aytal. ñaan bi ciy topp. waaw. déedéet. allah xam naa nag boobu moom il faut itam itam ñu jàng ko. dinañ ko jàngale ci daara ji bu soobee yàlla soxna Aïta kontaan nañu bu baax a baax a baax. xam nga jàngale na. waaw. waaw aywa. rëcc na rëcc na ndeysaan waaw euh, xam nga Aïta jàngale na njàpp. Mhm. jàngale na njàpp. su su li mu ne. masaa bi. waa kay loolu dafa am solo. Massa Massa foofu il faut nga taxaw ci Massa. bu ñuy bu ñuy bu ñuy régime njàpp waa ji bu ñu duggee ba ñuy jeexal ba ñuy leeral. njàpp waa ji dinañ ci dellu si incha allah. Mhm. bu ci nekk ñu ñu gën ko détaillé. Mhm. ba que bu ñu tegee élément bi gars yi di ñu ko di ñu ko tiiwal ñu wan ko nit ñi ba nit ñi mën koo def incha allah dana nekk lu gën a am njariñ tabarkal. Mhm. donc ñu ngi koy gërëm bu baax moom ayta eh, dugg bi mu dugg génn. si waat gis dugg na ñaari yoon. mami maman Diop dugg na ñaari yoon. kon ñi nga xam ne da ngay génn ñu dina woo ba ay deux heures du matin. ñu ne mënuma dugg si élément bi. man nag maa ngi bëgg a xaw a. sant yàlla mais extérieur yi maa ngi lay wax ne. Euh, macha allah kon euh, ñoom amul benn international bu dugg. Mhm. kon nañu xoolaat numéro international bi. Mhm. ndax wóor na ma ne Adja Astou fa wala mu ngi ñu ñu nee nañu ne démb dafa doon xaru <laughs> mu ne tax kooku wax ko ñoom ñu ngi nelaw te ñoom ñu ngi xëdd quatre heures bu émission bi commencé dañ ko enregistré te dañu fanaane liggéey. mu ne ma Europe Tafat Bintu kenn nelawatul moom yooyu yaa jàll nekk Milan ak. ak euh, Aram Bakkar Mbodj mhm. ñu ne ma soxna Faat Bintu fii Europe benn jigéen nelawul ñu ne li waa wax ne ah xanaa jigéen ñi dañ doon nelaw moo tax am na ko yéen ñu <laughs> fooy wootee man maa ngi tudd Seynabou Seynabou nan Seynabou Faye Cambérène laa wootee Adja de ah, Cambérène de Cambérène waaw laay laay Mamadou Seyni ak Alassane laay laay. kontaan nañu Zeynabu na def naka waa Cambérène. ñoo ngi ziar sëñ Cheikh def na dundee koor gi. ak ah, koor gi de jaamu yàlla rek. wallaay ndeysaan ak a baax. ndax weeru promotion loola def moo loo ci def moom ñu fay la ëpp loolu kay. waaw dañ rek waaw di def lu baax. macha allah macha allah Zeynab. man la dafa am lu bëggoon laajte. Hmm, bisimilah. daa am lu may laajte. waaw bisimilah Zeynab. parce que fajar man damay teel a yeewu su may xëcc. damay yeewu quatre heures. waaw. léegi quatre heures bi. dañuy hmm. su ma ko jëlee pare. temps hmm. bi may def ba dañuy salaatu. xam nga day yàgg. léegi damay xëcc su ma xëccee damay dem tëddiwaat. ba ñu salaatu. mu mu mu julli fajar. après ma doog a gis daal di jëm. waaw dama la laajte si diggante boobu. waaw si diggante bi kër gi. te dama tudd laa noonu ndax diggante bi mënu ma see am naafila yoo xamante ni naa ko dina def. wala du ko tudd yan daal. ñoom ñu jël temps bi ba salaat. macha allah yow daanaka sa Zeynab yaa ngi tontu sa bopp. loolu daal laa doon laajte daal. dëgg la dëgg la dinañ la ci tontu léegi bu soobee yàlla yaay booyal fay. xam nga oustaz wax na nañu bu lu am solo daanaka sax léegi xëdd bi sax boo ko boo ko dee daan def ca mu jaar yoon comme man ni may xëddee nga xam ne damay teg ndékki ak kaaw laa koy dox mais kaaw moom dafa du lekk dafa tuuti moo tax bu ko defee euh, quatre heures moom boo yeewoo da am sa temps pour xëdd nu nu nu mu baaxee waaye heure boobu ana jàngum alquran ndeysaan lu ñu waxoon ci aaya bi inna qur'aanal fajri kaana mashhuuda kaana mashhuuda mm-hmm. sama benn rakk ndeysaan Demba eh, Diop Mauritanie maa ngi koy nuyu daf may faral mm-hmm. di ma wax ne soxna Faat Bintu deel wax nit ñi mm-hmm. ñuy jàng alquran fajar ndax li nga xam ne yowmal qiyaamati moo lay seedeel loolu dafa am solo lool lool lool waxuma la seedeel de waaw gis nga nit bu fekkee yow ñoo ne yowmal xiyaam waaw yàlla danaan la alquran jàngi nii récité li nga man bu booy récité lu taal ascenseur bi oustaz ascenseur bi kon léegi xam naa foofu sax am naa fa laaj mokkal bi la wala liir bi la wala jàng bi mbaa du mokkal bi <laughs> léegi léegi léegi nga ni. léegi xam nga léegi xale bi di Zeynabu la ma baal sax. Mhm. Euh, soxna maa ngi koy ziyaar bu baax mën na nekk du ne nekkul xale bu ndaw. Mhm. Adja bu dafa ne quatre heures bi ba kii moom day nelawaat foofu nelaw xeeju fi yaay booy. Mhm. parce am amul lu mu def foofu. li muy war a def nag laa koy wax su tegee euh, euh, xëdd bi lu mu gën a moo gën ndogu lu mu gën a gaaw moo gën parce que yonent bi dafa ne gaaw leen ci ndogu bi yéexal leen xëdd bi ndax yëf yi tamit danga cee war a dund sunna ah, ah, ah. bu ko defee yi nga xam ne day toll bu desee quinze arrêté moo gën nga teel ko def lu yàgg mu am vide te sax vide warul am ci dund jullit jeex na mu noonu foofu bu fa nelawaat parce que boo nelawaatee soo moytuwulee seytaane këf la ba doo euh, fajar gi rëcc la ak julli suba gi nga jël kurusam bu fekkee mën nga jàng alquran nga jàng alquran soo Mm-hmm. ah ngay naafila la xej na fa ankay même bu doon ne def nga safa ak witr mm-hmm. parce que ñu bëri doon ah, defe ne bu ñu defee safa ak witr rek dootu ñu mën a naafila waat mm-hmm. da ngay ñaar ñaaral ba keroog ñuy ngay doyal ba ba ngay kii soo mënee tudd yàlla moo xam istighfar moo xam bi euh, mu mënti doon mais tamit may wax dafa am sama benn rakk démb rek mu ngi ma seet si euh, wirdi yu mag yooyu xale yi nañu moytu yenn wirdi yi ñuy wirdu daal loo xam ne lu lu oyof la. Mhm. ma ciy jaar di nuyu rakki si ak euh, Dieynaba si ñëw vacances jóge état. tabarakallah macha allah. waaw dañuy dem publicité ñëwaat. ah pub bi doo ñëwaat allah euh, ñu dem publicité ñëwaat bu ñu gën a ñu jël Oustaz Assane. Mhm. doo ko continuer waat incha allah bismillah mbokk ñu dem publicité ñëwaat. ya Ramadan ya